asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy rajo bii di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle euh, ngeen koy am chaque samedi de tey seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal Amadou Sarr nekk juriste nekk tamit euh, jeune ambassadeur bu task force euh, jëm ci accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste maanaam euh, kuréel gi nga xamante ni moom la ñu daal di tekk ñuy xeex ñun ñu amal avortement médicalisé si jigéen yi nga xamante ni dañ leen siif ba ñu daal di ci jëlee ëmb wala sax seen wayjur bu leen jege moo leen daal di sàkku ba ñu daal di ciy jëlee ëmb dañu daal di koy fas yéene kon waxtaane mbir moomu la nga xamante ni question d'actualité la euh, kii la tamit di Amadou Sarr nekk porte-parole bu campagne euh, wuy wàllu kon ñu fas yéene waxtaane lépp lu soxal euh, li nga xamante ni moom mooy avortement médicalisé ngir ñu amal ko fii ci Sénégal ñoom lan moo tax ñu koy daal di xeex ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daal ñu ko abordé ak suñu juriste Amadou Sarr ñu lay nuyu dina la dalal jàmm asalaamaaleykum askan bi asalaamaaleykum auditeur auditrice Rewmi FM ñëpp maa ngi di ziar ku nekk turam ak santam comme noo ko waxee man maa ngi tudd Amadou Sarr nekk juriste de formation en même temps nekk jeune ambassadeur au niveau du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol ou en même temps nekk porte-parole de la campagne wuy wàllu avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste pour sauver des vies campagne wuy wàllu Euh, lu ko wundu campagne buy wàllu bi euh, c'est euh, ampleur phénomène abortement clandestin bi mm-hmm. bi ñu defee ay taxaw seetlu ñu gis ni ki avortement clandestin dafa nekk benn fléau bu nekk di rey jigéen yi ñoo xamante ne ay victimes lañu de viol ou d'inceste ah, ñoo xamante amuñu beneen moyen ñuy recourir à l'avortement clandestin maanaam ñi nga xamante ni dañuy pratiquer actuellement l'avortement bari nañ léegi lan moo waral ngeen war leen a lan moo tax ñu war leen wàllu. waaw parce que amuñu solution. ñàkk solution boobu moo tax ñuy recourir à l' clandestin te ñoom ñu si bëri ñu ngi ñàkk seen bakken te euh, euh, c' est bi nga xamante ni dañ ko jëlee si anam bi nga xamante ne dañ leen tooñ maanaam dañ leen sàkku wala ñu tëddee leen tëdd bu seexlu mm-hmm. donc ñoom comme amuñu euh, comment dire encore protection amuñu solution mm-hmm. ñun nag ñu bëgg leen wàllu wàllu si boobu mooy lan ñu autoriser l' avortement médicalisé mais Amadou Sarr est ce que yéen xam ngeen kon yan type a wàllu ñi ni ñi ngi avortement euh, clandestin ba ñàkk ci seen bakkan naka ngeen di ràññee euh, ki ñu violé ak ki ñu violé euh, ki nga xamante ni peut-être ku ko jege moo ko sàkku ba mu jëli ci ëmb nan ngeen koy ràññee exactement bay soutenir ñooñu. waaw au fait boo gisee ñun ñu wax à chaque fois en cas de viol ou d'inceste c'est pas au hasard. Mm-hmm. parce que tey viol nekkul ñun comité bi ñu ñuy déterminer kan la ñu violé. Mm-hmm. viol de ça du topp procédure bi nga xamante ni day dem. Euh, du moment euh, bi nga xamante ne acte bi am na. Mm. ba juge bi di ko établir. Mm. kon juge baa ngi fii dëkk droit la ñu nekk c'est le juge qui abilité pour prononcer le viol. inceste aussi dañu gis ni kii c' est des cas yoo xamante ne mi ngi xëyee fii suñu réew mm-hmm. euh, xale yoo xamante ne seen euh, euh, waajur wala seen parent wala seen frère ñoo leen di tëddee mm-hmm. ñu koy tuddee tëdd bu seexlu donc tey ñun cas yooyu la ñu nekk di gérer dans le cadre du comité mais pas ñoo xamante ne ils sont pas victimes de viol ni d' inceste ñooñu on parle pas de leur cas ñooñu ñooy ñëw si yéen wala yéenay dem si ñoom wari leen comment non. ça se passe euh, ça euh, nekkul ñun ñooy dem si ñoom wëri leen da ngay gis ni ki euh, tey les victimes de viole dañu saisir ñëw expliquer ñu seen problème dañ leen violer léegi euh, la demee ñun tamit ñu xool comment ñu leen di assister tout en sachant que jusqu'à présent l'avortement demeure interdit au Sénégal maintenant ñun la la leen di defaral comme task force bi kuréel bu mag la am na association yu bëri yu euh, yu si nekk ñu xool nañ leen leen di référé pour ñu euh, amal leen euh, prise en charge bu baax ñu mën a continuer. mooy ñi nga xamante ni def nañ avortement ba pare wala ñi nga xamante ni ñi ngi seen grossesse déjà ñan ngeen di wàllu c'est ça la question. c'est ça c'est-à-dire c'est des victimes yoo xamante ne xam nga tey man mun c'est-à-dire nekkul ñoo xamante ne dañoo avorté ba pare parce que avortement ainsi délit la. Mm-hmm. parce que code pénal moo ko sanctionné kon ñun actuellement on cautionne pas. à avec une personne bi nga xamante ne avorté na. Mm-hmm. ñun au contraire nan la ñu amal affaire mooy victime bi nga xamante ne tey dañ ko sàkku mu traumatisé xamul lu muy def. ngeen ñëw taxawu ko. ñu ñëw taxawu ko euh, c'est-à-dire euh, may ko soutien. apporter ko soutien moral assistance juridique également. Mmh. tout en sachant que avortement actuellement c'est impossible au Sénégal. Mm-hmm. léegi lan mooy euh, chiffre euh, ñi nga xamante ni mooy avort ñi ñiy pratiquer euh, l'avortement clandestin au Sénégal maanaam ñi nga xam ñi ngi yàq ëmb ba pare di di di nëbbatu les chiffres. Euh, bu ñu xoolee euh, étude bu Goodmark Sénégal menée depuis 2012 euh, mu publier ko en 2015 mhm. dafa xayma si benn année en 2012 que am nañu plus de cinquante mille cinq cent cas d' mais répartir ñu est-ce que cas wu avortement yooyu noonu c'est des victimes de viol ou d'inceste ou des cas yoo xamante ne ce ne sont pas les deux cas cités. Mm. donc en somme mooy cinquante mille cinq cent yooyu noonu c'est les euh, le nombre ou bien c'est le chiffre d'avortement. donc euh, loolu noonu da ngay gis ni ki même si le l'avortement demeure interdit au Sénégal mais on a quand même euh, ces chiffres là que l'avortement euh, ça se pratique au Sénégal te jigéen ñi ñu ngi ci loru. voilà léegi ngeen taxawal benn euh, euh, task force ah jëmle ko ci euh, avortement médicalisé task force boobule kuréel gi ñan ñoo ci nekk ñan exactement. task force bi ñan ñoo ci nekk. Euh, euh, on a euh, plus de vingt deux organisations de la société civile yu bokk ci task force bi moo tax ñu tuddee ko comité de plaidoyer pour l' accès à l' avortement médicalisé en cas de viol ou d' mm. comité boobu tey am na ay association journaliste ci la ñu bokk association juriste ci la ñu bokk association infirmier ci la ñu bokk association yu bëri yu bëri bëri bëri même association islam ci la ñu bokk réseau islam am ngeen ay imam yéen effectivement am nañu. réseau mu wax ci avortement am nañu réseau islam et population qui est membre du comité. Mm-hmm. waaw te ay ay ay ay personnes yi crédibles la. yoo xamante ne ay imam yu nekk ci biir yu cautionné avortement médicalisé en cas de viol ou avec des arguments étayés aussi. mais lan lan lañ expliquer ñoom ba ba ba parce que bu ñu dégloo les religieux parce que xam ngeen ni am nay beneen côté euh, waa waa Jamra wala yeneen i euh, kuréel yoo xamante ni ñi ngi fi ñoom ànduñ benn yoon ci li nga xamante ni yéen bëgg ngeen ko di avortement médicalisé parce que dañ ko jàppee comme ay assassin quoi da ngeen bëgg euh, daganal ñuy faat ay bakkan comme ça Euh, donc imam yooyu yan explication la ñu joxe ba mën a adhérer yéen ci seen cause. Euh, nekkul ñun dañ leen jox explication. Ah. mais ñoom dañoo def étude. parce que c'est des experts ci seen matière. Mm-hmm. man je suis pas un religieux je suis juriste. Mm-hmm. mais ñoom c'est des religieux yoo xamante ni dañoo euh, def ay enquêtes aussi wàllum religion ñu xool. Euh, yan cas lislaam l'islam permettre femme bi nga xamante ne euh, dafa subir viol ou inceste ou viol bu nekkee en danger mhm. ban kaala la prévoir kooku mun nañ koo autoriser avortement parce que islam bul fàtte dafa permettre avortement bu fekkente ne bakkenu xale bu jigéen bi mi ngi si xottu jerte mais tey boo gisee boobu rek la ñu xam de. boobu boobu la sax euh, c'est c'est c'est maanaam euh, Sénégal kenn terewu ko fi. kenn terewu ko fi après sax si bi comment ça effectivement mm. léegi ñun comité bi euh, réseau islam bi ñoom dañoo def seen taxaw seetlu ñuy produire un argumentaire juridique kii religieux. Mm. argumentaire yooyu yooyu noonu day wax sur processus grossesse bi. si un religieux était là moom mun na la expliquer puisque moi man je suis pas un religieux mm-hmm. mais dañ ne avortement euh, ça mooy le principe en l'islam c'est l'interdiction mm maintenant pour des cas cités léegi-léegi nii mooy ñoo xamante ne dañoo subir préjudice mooy les victimes de viol d'inceste am na ay écoles Euh, islamique yi nga xamante ne dafa am benn controverse bu si nekk am na ñun ñoo xamante ne dañoo catégorique ni ki ñoom nee nañ avortement dañ koy bañ mais am na partie bi nga xamante ne ñoom nee na avortement mun na am avant les cent vingt jours de gestation. de gestation mais léegi ci ci avortement euh, médicalisé bi nga xamante ni c'est permis au Sénégal euh, di bu fekkente ni la vie de la mère est en danger euh, boobu c'est permis mën nañ ko def mais euh, procédure bi naka lay demee exactement pour ñu ñu mën ko euh, defal avortement médicalisé. voilà avortement boobu ngay wax mooy avortement bu article trente cinq du code de déontologie médicale prévoir. Mhm. dafa ne bu fekkente ne euh, avortement mooy le seul moyen pour sauver la vie de la mère on peut recourir à l' thérapeutique mhm. léegi avortement boobu noonu nee nañu il faut que médecin buy traité xale bu jigéen bi mu attesté ko. Mhm. ak yeneen ñaari médecin yoo xamante ne. bokkul euh, léegi procédure boobu noonu day jël temps. te maa ngi wax léegi léegi quand la vie de la mère est menacée mm. est-ce que quand la vie est menacée on peut recueillir euh, l'avis d'un médecin trente et qui commande encore temps et de deux autres médecins accrédités par le turbinal est-ce que temps bi dinañu ko may. koo xamante ne procédure bi ça prend du temps. ça va prendre plus de euh, mais euh, mun na ko dépasser donc ñun tamit. ñi ngi euh, militer en faveur que ñi wàññi procédure boobu noonu ñu def ko ci délai bu gàtt ñi permettre à kooku noonu euh, ku ñu wax sa vie est menacée mu mën see mucc parce que tey euh, war a joxe vie ñàkk ci sa vie. Mm. je pense que kenn cautionné mais mais Mame Matar Gueye nee na mais tous les avortements sont médicalisés. maanaam kay peut-être dañuy nëbbatu di ko def ci hôpitaux yeeg cliniques yeeg yenn kii mais c'est médicalisé yow loolu loo siy tontu. l'avortement actuellement au Sénégal c'est pas tous les avortements qui son médicalisés ma cité la exemple ma cité la exemple tay ku naan bleu dafa médicalisé ku naan bleu cest à ku ëmb nga naan bleu pour yàq sa ëmb ana lu médical ku ëmb tey nga euh, xool par euh, des moyens de bord nga yàq sa ëmb dafa médicaliser ñun buñ ne avortement médicalisé on veut un avortement sécurisé un avortement qui va être fait dans les règles de laar médecin moo koy def si euh, benn plateau médical bi nga xamante ne c'est conforme au norme ñun loolu la ñu wax même si en médecine risque zéro n'existe pas mais ñun dañu bëgg mais xam lu jaaxal nit ñi yéen tamit euh, maître Amadou saax lan moo waral nee nga ma seen kuréel gi seen task force bi y'a presque vingt cinq organisation de la société civile am ngeen ay religieux am ngeen euh, voilà beaucoup d'intellectuels yoo xam ne ah, lan moo waral ñuy adhérer automatiquement ci euh, cause boobu di xeex pour ay avortement médicalisé comme ça en cas de viol d'inceste lan moo nekk ci ginnaaw kan moo nekk ci ginnaaw dañ leen a jox xaalis wala qu'est-ce qui se passe waaw euh, mun naa la ngeen taxaw fa yéene jàmbaarloo ak religieux yi. jàmbaaru ñëw ak kenn. waaw boo xoolee objectifu campagne bi c'est susciter le débat du grand public ñun tey dañoo def campagne bi pour informer juste mais aussi euh, ñi euh, recueillir yeneen feedback yi. c'est-à-dire mhm. ñi indil ñu yeneen ñoom tamit cest à nañ ko waxtaanee. dañ ko waxtaane yéen ban intérêt ngeen si am yow yow par exemple yow Amadou maître Amadou Sarr euh, ban intérêt nga am si ne voilà nañ def avoctement médicalisé pour les victimes de viol et d'inceste intérêt bu ma ci am mooy protéger les victimes c'est c'est c'est c'est un tous même yow am nga ci intérêt euh, même am nga ci intérêt am na am na fi ñeneen ñoo xamante ni gën nañu soxla seen seen protection yéen te kenn du leen si dégg comme ñan non bari na ñan exemple comme par exemple xale yi taxawaalu si mbedd mi vingt-quatre heures sur vingt-quatre kenn fa kiiw leen nga xam ni waxuma sax euh, victime de viol et d'inceste mais lu raw lool sax ñi ngi koy daal di dund mais porté wu leen combat boobu lan moo waral seen doolee xam nga am am yeneen question plus sensible que sax ngeen topp rek ne euh, coûte que coûte foog ñu euh, légaliser li nga xamante ni moom mooy avortement est-ce que tamit amul ñu nekk seen ginnaaw wala ñu jox leen xaalis parce que bëgg nañ comprendre yéen lan lan ban intérêt ngeen si am exactement ay am intérêt intérêt bu ñu ci am mooy actuellement euh, euh, jigéen sénégalais ñi ngi subir viol ñi ngi subir inceste ñi ngi recourir à des moyens empiriques yi nga xamante ne day yàq seen àdduna intéret boo intérêt bu ñu ci am mooy tey ñi permettre jigéen yooyu tey dañ leen tooñ te kuñ tooñ tey dafa soxla ñu dimbale ko dimbale boobu si la ñu nekk mais viol inceste rien du tout parce que tey euh, société civile bi engagement volontaire la man mi taw fii tey nii je n'ai rien à y gagner mais fierté bu ci am fierté bu ci am mooy gagnewu leen dara Maître Amadou Sarr yow boo amee preuve man dama la poser question moom laa lay répondre c'est sûr yéen li dara du tout rien du tout pas un franc pour juste pour sauver les victimes mais am na am na ay kuréel yu nga xamante ne il milite pour la protection du droit de l'enfant si si naxee seen bopp si avortement bi non non non parce que peut-être yow yow yaa bëgg euh, gis ne ki ñun dañoo rey suñu bopp uniquement si avortement mais tey boo xoolee organisation société civile yu bëri mam su ma la citalee benn kese AGS mi ngi fii euh, tey AGS taxawaayu euh, taxawaayu bu mu def si wàllum protection de l'enfant tey AEMO yaa ngi fii mais xanaa kon da nga jotul si information yi fii xam naa waa AGS bu baax fii kuréel yu fu yu bëri yi fi nekk naan dañuy taxaw si àq ak yelleefu doo tànk yi yi ay séminaire la ñuy organiser xale sax doo ko fa gis saa yoo yeewoo xale yi gën a yokk si mbedd mi donc ñoom seen kuréel yooyu ban ban njëriñ la am. responsabilité mais taxaw nii yéen xar seen tànk tubéy ah, di xeexal ay victimes soi-disant entre guillemets dinañ ñëw sax après comment ça va se passer bu fekkee loi boobu voté nañ ko di xeexal ay victimes comme ça di rey seen bopp am te am na ñeneen ñu ñu gën a soxla ndimbal boobu te kenn euh, dégguñ ci société civile bi. yéen tamit société civile bi société civile bi. ba société civile encore entre guillemets. entre guillemets comment explique soyez plus clair. société civile lan mooy seen njëriñ. ñun ñun ñun suñu rôle. waaw tey tey dañuy veiller à la protection des citoyens d'alerter également comme li ñu nekk di wax nii. Mhm. nekkul société civile bi moom moom moo ne état Sénégal mhm. dem xaatim convention de Maputo. Mhm. état Sénégal moom moo signé euh, le protocole de Maputo en 2004. mu ratifié ko en même temps bi bi mu ko ratifié nag sans réserve euh, également maanaam moom dafa d'accord ci pàccu protocole bi yëpp moom moo ko ratifié. Mm. kon responsabilité état la tey état tey protection enfant yi ngay wax responsabilité état la. tey yow yow man. ñun ni ngeen taxawee rey seen bopp ngeen ñu voté. parce que parce que fléau la les cas de viol de noonu ngeen waroon taxaw rey seen bopp ngeen na ñu jëlee kut ko kut xale yi ci mbedd mi. mais ku nekk et ça ku nekk accessible. et loolu noonu si ngeen di gën a am le le soutien de de toute la population. mais ku nekk accessible mais defoo leen ko. organisation société civile bi c'est-à-dire ñun ñëpp. yënguñu si benn objectif ku nekk accessible la wow. tey am na ñu nga xamante ne comme ni ma la ko waxee sànq ñoom ñu ngi yëngu si protection du euh, du droit des enfants yow yaa leen sentirul yow yaa leen sentirul lan mooy seen njëriñ yow yow yaa leen sentirul société civile comme ça c'est c'est c'est vous qui pensez ainsi séminaire atelier droit de l'enfant te enfant yi ba ba léegi ñu ngi jalgati seen àq ak seen yelleef loolu état si si si mi loolu état ngay indexé c'est au rôle de l'État, c'est euh, à la responsabilité de l'État de veiller à la protection de ses citoyens. léegi yéen yow nga ne li ngeen di def nii zéro franc gañewu leen si dara amoo leen ci intérêt euh, kan mooy financer campagne bi nga xamante ni yéen a koy def parce que campagne bi ça ça demande de l'argent kenn mënul def campagne communication comme ça ci zéro franc comment ça se passe. nee naa la ñun. ku ko financé ñun ñun on travaille avec euh, euh, les organisations qui sont la ici au Sénégal euh, maanaam association yu maam task force bi. waaw mais foog ngeen soxla koppar tamit maître Amadou Sarr yow mënoo ñëw rek say loxo. comme ça mais yow yaa ngi nii organiser. yaa ngi nii nga ma émission. waa da nga jox koppar. mais yéen de non man yéen laay jàppale. non jàppale woo ñu. non instant bi dangeen ngeen yéen sax yéen a ma war a fay ay koppar. non parce que dama leen di permettre ngeen communiquer si seen benn euh, objectif da ngeen a bëgg ñu légaliser euh, avortement ainsi de suite. mais pour l'intérêt de tout moon monde intérêt général la. non man sama liggéey laay def dama ne mais bu amee ku war a fay yow yaay fay. parce que maa ngi la permettre ngeen di communiquer ci seen campagne dama ne la campagne bi nga xamante ni yéen a ngi koy def du euh, zéro franc ma koy def il vous faut peut-être tuuti xaalis pour organiser seeni atelier organiser seeni séminaire organiser seeni campagne de sensibilisation euh, organiser seeni point de presse dem si euh, sensibiliser nit ñi ci ñan ngeen bëgg ñu leen avortement médicaliser et tout mais et pour faire sa il faut peut-être un budget budget boobu fan ngeen koy jëlee laal la laaj déggoo ba li ma la wax de pour fair sensibilisation pour faire point de presse. Eh, point point, point de, de presse atelier demandé de demandé euh, euh, moyen tey il suffit que ma woo média yi ma damay def point de presse ils seront présents. Mhm. il suffit tey ma bëgg sensibilisation jël gis benn groupe jeune ci euh, quartier bi ma toog waxtaan ak ñoom ma sensibiliser xam nga lu ëpp solo. léegi atelier nag mais ma nga war a def atelier ci hôtel comment ça se passe le budget. boo ma posé question da bàyyi ma répondre gis nga tey lu am solo mooy lan. que ñiy wax viole bi ñi wax inceste bi fait de société la ay question de financement yooyu noonu mais nañu wax ci fait de société mais nag foog nga tontu ma Amadou pour ñu mën a dem xam lu nekk ci gannaaw campagne bi mais est duñu jox raison waa parce que yow ba tey mu nangu woo tontu sama question bi campagne boo gis soxla ngeen budget li ma la wax c'est ñii déglu xam nañ li ma wax budget campagne task force bi pour euh, l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste budget boobu fan lay jóge laa la laaj xaalis boobu ngeen di soxla astuut lu mu néew néew di ngeen soxla xaalis bu ngeen jëlee euh, hôtel euh, Radisson Bay wala teeru bi wala je sais pas bëgguma def publicité def fa seen benn atelier pour parler de l'avortement médicalisé ainsi de suite il vous faut un budget budget boobu kan moo koy non parce que yow boo waxee loolu on dirait que da ñoo gis si hôtel yi wala da ñoo gis ay si euh, euh, euh, lieu de la place quand même. Mhm. man dam la ne. du ngeen organiser atelier fii. tey mhm. tey bu ñu soxla soxlawoon atelier organiser ko tey. même ngeen defaree ay flyers. c'est mais déggoo ma man ne la comité bi 22 organisation la. kon bu ñu ne 22 organisation bi yàlla a force donc tey. tey bu ñu jëlee bu ñu jëlee benn organisation membre task force bi. ñu organiser ci siège bi benn atelier ça passe. où est le donc dama dama la bëgg a wax benn koppar dama la bëgg a wax ni ki mm. euh, l'impor euh, li gën a important ci plaidoyer bi du koppar bi mm. mais lan la te lan lañu mën a def tey pour sauver ces victimes man je pensais que c'était plus objectif tey parce que tey euh, protection bi ñu nekk di bëgg a accorder victime de viol ou d'inceste bi du ñen lañ koy kii accorder lu dul sénégalais yi tey sénégalaises yi nekk fii ñoo xamante ñoom ñooy subir le viol ñoom ñooy subir l'inceste tey boo xoolee ci euh, quotidien yëpp faits de société yi tey dañ koy wax tout le temps dañ koy wax donc c'est des faits yoo xamante ne mi ngi xewee Sénégal loolu tey ñun moom la ñu bëgg a tey nit ñi nañ ci wax outil femmes yooyu noonu solution ndax ñu mun a épanouir parce que bu ñu nee pays tey organisation la tey. Mhm. normalement tey état bu respecté woon juste engagement am lii yëpp du ñu si doon fekk. mais dañoo gis ni tey défi de santé publique la parce que avortement tey yow nga bañ ko gis wala nga bañ ko dégg mais avortement c' est un fait de société bi nga xamante ni ça se pratique ici au Sénégal et ñëpp ñu koy def sa de manière clandestine parce que c' euh, est euh, de manière parce que c' pas encore autorisé par notre législation ñu ne euh, comme par exemple sa damay jël Jamra parce que ñoom seen seen seen seen position c'est radical ñëpp xam nañ ko boobu ba léegi ñooy xeex ak yéen fu ngeen yëkkatee ñoom ñu taxaw ci wet ga ne loolu du fi amee euh, nee nañ même bu fekkente ni yéen Euh, da ngeen da ngeen a précis ci seen campagne wala ci seen combat wala ci seen projet euh, ne pour les victimes de viol et d'inceste nee na bis boobu loi boobu bis buñ ko voté au Sénégal ça veut dire que euh, dootul nekk pour les victimes de viole et d'inceste rek maanaam ku di nga gis fee ku fooba doyal def lu la neex ñëw ñu defal la avortement médicalisé comme ça se passe dans les autres pays inci de suite wala nga gis koo xam ni sax kenn violé wu ko euh, elle n'est pas victime de de de viol ñëw ne victime de viol la wala ainsi ainsi de suite pour mën a am li nga xamante ni mooy avortement médicalisé léegi yow euh, lan ngay tontu ñoom Jamra wa ñoom Mame Mactar Guèye ci question boobu comment ça se passe yan mesure d'accompagnement moo nekk ci euh, loi bi ba bis buñ ko voté ñi ci mën a bénéficier wu day nekk kese pour les victimes de viol et d'inceste merci beaucoup si laaj boobu noonu euh, au fait ça sera pas tontu waa Jamra mais c'est euh, waxaale ni ki y a de personnes dañuy déformer suñu message tey ñun comité bi tey ku bëgg information bu leer surtout mhm. mën nga ñu saisir ñun on est disponible mais dañoo ne ñun on est pour le principe de l'interdiction de l'avortement comme ni ko code pénal article 305 waxee mhm. nañ koy continuer di ko crime euh, c'est-à-dire interdire mhm. mais juste ñu autoriser ñu ajouter en alinéa au niveau du code pénal article 305 bi ñu ne sauf en cas de viol ou d'inceste uniquement ñun cas yooyu la ñuy gérer. Mm-hmm. kon ñun tey suñu plaidoyer bi. maanaam euh, ci ci ci loi bi coppite boobu lañ ci indi. kese lañ bëgg ñu maintenir le principe de l'avortement maanaam dañ koy interdire au Sénégal mais ñu yokku fa benn alinéa mm-hmm. euh, boo xamante ne day ne sauf en cas de viol ou d'inceste. Mm-hmm. kese la ñu wax waxuñu l'avortement pour tous. jamais on l'a pas dit. boo xoolee est-ce que tamit du du fenêtre boobu ngeen di wul rek. non non ci avortement ngeen jëm loolu interprétation ñenn la. parce que da ngeen di xool ba xam gars dinañ kii waaw xaw a caxabal noonu. non non non xam nga xam nga tey ali bi xam nga tey mhm. lépp loo xamante ne tey da ko bind euh, euh, noir sur blanc texte la tey ñun lu ñu bind noir sur blanc. peut-être interprétation ñeneen ñi la ils non pas la bonne information d'où la nécessité ñun on veu informer juste et vrai ñun lan la ñu bëgg on veut pas de l'avortement pour tous on veut uniquement euh, un avortement pour les victimes de viol ou d'inceste parce que tey am nañ des cas xool euh, on a eu un cas à Ziguinchor xoom un enfant euh, une enfant peut-être de euh, neuf ans de neuf mu contracté grossesse mais mais xale bi après fa la mujj dafa mujj ñàkk bu bakke na kon cas yooyu noonu tey lan la parce que viol la kooku tey bu ñu autorisé woon avortement est-ce que on euh, duñ doon sauver vie ñun loolu lañ nekk di xee protéger ces femmes là ñoo xamante ni et non pas demander à tomber enceinte parce que lan la dañ leen tooñ xam nga lan moo gën a métti mm. ñu tooñ la ñaari yoon ñu tooñ la parce que ñu teg la ëmb bi nga bëggul mais loi imposer la grossesse boobu noonu moo taxit nee nañu tey nañuy euh, discuter tey ñun on est euh, ouvert ñu ngi fii képp ku indi proposition allant dans ce sens nañ ñoo toog waxtaan xool faisabilité bi ak euh, kañ nañ ko mën a def ñun ñeneen ñu euh, avant cent vingt jours conformément au Malikite ñeneen ñi tey nee nañu peut-être à dans les quarante deuxième euh, euh, nuit mais l'essentiel bu fekkente ni il possibilité nañ ñoo toog ñu waxtaan xool nan lañ koy harmoniser ba ñu mun a permettre victimes yooyu noonu tey ñu mun a épanouir dans la société. ñu mun a dund normal. la loi voté yaa ngi dégg une fois votée la loi sur l'avortement médicalisé euh, pour les cas de de victimes de viol et d'inceste bu amee naka lañ koy xamee. maanaam médecin yi ñu war a def procédure bi comment ça se pour ñu xam ne ah Ndeye Comba mi kat kenn violé wu ko elle n'est pas victime d'inceste kon bu bëggee avortement médicalisé duñ ko ko accepte accepter c'est interdit par la loi nan maanaam mesure d'accompagnement boobu est-ce que naka lay demee ak lan ngeen proposer les mesures d'accompagnement une fois mmh. loi bi bu autoriser avortement bi il y aura des mesures d'accompagnement loi boo gis day am décret d'application moom mooy euh, wane les modalités. Euh, maanaam dans lesquelles maanaam ràññee les victimes. les victimes. waaw naka la nee la le viol nekkul man Amadou man maa lay wax ni ki il y a viol je suis pas habilité à attester un viol seul le juge est habilité à attester le viol. Hmm. moo tax ma ne la tey bu ñu confronté une fois ñu am loi bi ñu confronté à un cas bi nga xamante ne kooku dafa ñëw ñu ne ko mu ne euh, bu une personne bi nga xamante nee na moom dafa subir viol. médecin yaa ngi fii bu ñu defee ñoom seen euh, euh, comment dire encore mm. euh, soins yi mm. ñu jël papier bi ñu jox ko juge bi juge bi moom mooy xool parce que il est lié par les faits bu confirmer qu'il y viol kooku de son choix si elle veut recourir à l'avortement médicalisé ñi mun ko ko permettre si elle veut aussi ñu bay ko ko mais procédure boobu est-ce que du gudd ba peut-être trois mois yi daal di passé ba avortement bi dootul mën a am moo taxit ñun su hmm. sunu euh, proposition bu ñu bëgg def mooy tey ñu tenir en compte les cent jours maanaam procès bi bu mu dépasser les cent vingt jours tey kuñ ne dañ ko violer ñi mun a euh, réunir euh, toutes les preuves. est-ce que loolu c'est faisable tamit Amadou. si li ngeen bëgg a def nii. si c'est faisable c'est faisable. maanaam ku ñu violer déjà procédure bi processus bi. te dina am ñu bëri ñoo xam dañ leen di violer ba ñu jëlee ci ëmb sax mais du ñu dem déclarer ko. mais je confirme am na ñu nga ah. xamante ni tey. du ñu dem déclarer ko dañ leen di violer. ñu toog ba 6 mois. ñu ñëw ne la dañ ma violer. mais kooku amul preuve loolu mais. mais moo taxit nag ñu war a sensibiliser nit ki tey euh, ku jànkoonte ak cas de viol da nga koy dénoncer à temps lan lañ leen di conseiller tout le temps. bu leen simmi yére xale bu jigéen bi dem leen directement à la police ou bien à l'hôpital ñi defaral ko les premières euh, constatations ñu mun a am euh, preuve même si commencement de preuve la. Euh, parce que mais ce que li ngeen yéen li ngeen bëgg nii Amadou c'est faisable. au Sénégal est-ce que am na ngeen moyens yi sax ba ah, ba pare est-ce que yéen vous allez encadrer toutes les victimes de viol et d'inceste parce que loolu li ngeen bëgg nii su fekkee lu mën a nekk fokk yéen ngeen encadrer leen carrément euh, si processus bi ba ñu prouve que viol la ba médecin yi xool ko ba mu mën a recourir à l' avortement médicalisé c' tout un processus boo xamante ni victime bi day soxla ku ko taxawu jàmp-jàmp avant avant la la fin de trois premiers mois pour mu mën a bénéficier wu ci effectivement mais moo taxit loi bu amee waaw tey dañ koy introduire benn procédure d' urgence procédure boobu noonu tey mooy nekk ci mesure d' accompagnement de la loi bi boobu état moo koy mettre en euh, cest à moo koy prévoir sur en place euh, euh, moo koy mettre sur code de procédure pénale am nga xam ne boobaa victime bi moom day xam ni fii fii laay jaax quoi voilà automatiquement tey bu ñu mayee loi bi mhm. aussi délai procès bi dañ koy dugal ci procédure pénale bi code de mhm. procédure pénale bi xool kañ la euh, jugement bi war a euh, euh, génn mhm. maanaam avant les cent vingt jours loolu yëpp c'est prévu dans le cadre du plaidoyer mhm. donc loolu je pense que amul loo si inquiété wu parce que tey su ma comparé un tout petit peu rek mhm. Guinée bu ñu gën a jege fii am nañu loi sur l'avortement médicalisé en cas de viol ak d'inceste tey tey dañ koy def ci délai mais tey c'est-à-dire lan nan la fa faisable faisable fii nii c'est-à-dire ça demande juste une volonté bu amee rek après ça passe. mais donc kuréel yooyu day fekk état moo leen di mettre en place pour les pour victimes de viol et d'inceste. non il y a on a des magistrats a on a des médecins on a nos tribunaux qui sont là donc euh, je pense qu'il y a pas problème de structure tey suffit que tey bu ñu amee cas de viol nekkul ñun comité bi ñun ñooy ne viol la non bu ñu ñëwee kii ne moom victime la dañ koy orienté di ngeen ko euh, dañ koy accompagner tey si le faut ñu dem police mbaa gendarmerie ñu référé ko à l'hôpital ko ñu consulter ko xool ñu saisir le juge nekkul ñun ñooy def euh, parce que ñun comité bi ñun juste dañu bëgg a def plaidoyer bi état engagement ba mu jël na ko respecté mais après procédure bi y a des structures y a des institutions qui sont là en euh, euh, qui sont en charge de ça. yow lan moo la def ambassadeur ou voilà jeune ambassadeur si si tas si avortement médicalisé bi. oui juste on m'a formé en tant que jeune. Mm-hmm. loolu appellation la mhm. cest à amul mhm. quelque chose bi nga xamante ne peut-être euh, moo si jaabal mais juste appellation la tey euh, jeune la bu mhm. bokk si comité bi tey euh, ñu ñu tuddee ñu les jeunes ambassadeurs comme mun nañ ñu tudd tuddee les jeunes tout court wala ñu wala ñu ne ma Amadou donc appellation la ça n'a pas trop léegi léegi yan cas moo la gën a marqué ci peut-être expérience bu nga am si cas de viol wala inceste yi nga gis nga xam ni yow vraiment euh, deux cas wala trois wala quatre yu la marqué nga ne vraiment foog ñu amal euh, avortement médicalisé pour ces genres de victimes par exemple. tout à l'heure kaawu euh, kaawu fille de neuf ans ma la wax. Mm-hmm. biñ ko violé ñu saisir le juge. Mm juge bi xam nga lan la wax. que sa santé n'est pas menacée sa vie n'est pas menacée xale bi ñu continuer ñu bàyyi ko mu continuer mu mu poursuivre bi à sept mois si grossesse om bi si mm-hmm. si la ñuy intervenir xale bi mujj si ñàkk bakkanam pourtant au début nee nañu sa vie n'est pas menacée sa santé n'est pas menacée mais est-ce que son corps tey xale bu neuf ans xale bu onze ans yow jigéen nga xale bu neuf ans onze ans est-ce que tey yaram pare na pour supporter un bébé c'est-à-dire kenn ku nekk na xool rek est-ce que loolu tey 9 ans 11 ans xale la xale tey yaram bi munu ko supporter. Mm-hmm. kooku ñàkk na bakkanoom parce que lan la dañ ko tooñ. parce que lan la état accordélul ko benn protection ñun tey man bokk na si loo xamante ni daf ma marqué tey victime yooyu noonu. ce sont ce sont des victimes nekkuñu mm. ay coupable dañ leen war a euh, euh, c'est-à-dire encadrer wan leen ni ki société bi am nañ fi place. parce que tey Sénégal lan moo suñu problème tey euh, kuñ fi violé mbaa leneen dal la tey dañ lay stigmatiser tey dañ lay wax loo xamante ne alors que victime bi tey lu mu soxla mooy protection tey bu la nit ñëwee ne la dañ maa sàkku bu ko jugé parce que tey amul kenn ku naan lii nii man euh, c'est-à-dire mënuma dal mm-hmm. ñëpp lay dal ba ci mm-hmm. xale ba si majeur laa lay wax nii magum jëm mun na ko dal kon lenn la rek tey nañuy am benn taxawaay bi nga xamante ni tey euh, ñun ñëpp ñu positionné wu à un bon protecteur te ñu xool nan la ñuy wàllu see xale yooyu noonu tey moo taxee ñun état demandé wu ko lu bees de. Mm. dañ ne li nga engage respecté ko ñun loolu lañ ko demandé le protocole de Maputo. effectivement mm. yow yaa ko signé yow yaa jël engagement bi yow nga nga euh, nga signé ko nga indi ko parlement parlement bi ratifié ko kon euh, dañ na la nga respecté loolu te mm. ñun. néewuñu pour ñëpp mais uniquement pour ses victimes. pour ses ndax ñu mën a ñoom tamit épanouir.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 Euh, moom mooy euh, viol ak inceste bi euh, souvent position wu religieux yi yow ban ban ban ban xalaat nga ci am exactement religieux yi nga xamante ne dañu taxaw exact actuellement pour xeex ak yéen ci ci projet bi la lan nga leen di wax. tey ñun religieux yooyu noonu man lan laa ci mën a wax mooy peut-être dañoo amul bonnes informations. Mhm. parce tey ñun comité bi li ma fi wax tey. cest yi dire da ngay gis message bi des fois ñeneen ñi euh, dañ koy foree fu nekk bëgg bëgg ñu wax lu ñu waxul mhm. mais ñun suñu message yi dafa clair peut-être que dañoo amul les bonnes informations mais moo taxit nag ñu suscité ñi indi campagne bi pour informer leen tey est-ce que dem ngeen seeti religieux yi maison religieuse yi cité yi dem Touba dem Tivaouane parce que tamit Sénégal peut-être am na nu mu bindoo dem Kaolack euh, seeti euh, la famille religieuse ainsi de suite waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy li ngeen bëgg Euh, gis nga dans le cadre euh, de notre plaidoyer ñun euh, suñu cible yi ñëpp ci bokk. Mhm. ñun dañuy liggéey ak religieux yi parce que tey Sénégal tey dara mënu fi jàll te impliqué wu yi. Mhm. donc dinañ leen dem seeti toog waxtaan ak ñoom parce que ñun lu ñu bëgg tey mooy ñëpp comprendre tey suñu plaidoyer bi lan lañ ci bëgg. Mhm. religieux yi tey bu le moment venu. dinañuy def parcours dinañ def tour famille religieux yi ñi dem ñi seeti leen toog waxtaan ak ñoom parce que tamit tey ñoom ñooy magum ñoom ñooy kilifa dëkk bi tey euh, euh, même euh, hormis ñoom y'a d'autres cibles yoo xamante ni ñi ngi fii tey ñëpp lañuy ñun ñëpp la ñuy impliqué dañu bëgg tey ñëpp jot ci information bi xam ñun lan la ñuy xeex tey parce que tey boo xoolee bu baax comité bi depuis 2013 dañ ko taxawal 2013 ba léegi. Hmm. ñu ngi mënee des actions. donc je pense que ñun tey ñëpp lañuy ñuy impliqué amuñu benn euh, civil bi nga xamante ne dañ ko mettre voilà xaaj seen amuñ ci ñëpp lañ ci impliqué. léegi naka nga gisee euh, viole ñu ñu criminaliser ko euh, peut-être xam naa si combat boobu si ngeen bokkoon si de suite mais terewul phénomène viole ba léegi mi ngi yokk malgré la criminalisation du viole lan nga si xalaat. Euh, lu ma ci xalaat mooy xam nga bu ñu criminaliser viol bi ñëpp jàppoon ni kii dafay dissuader les violeurs mm-hmm. mais euh, constat bi wala surprise bi lan la mm-hmm. depuis loi bi bi ñu ko euh, adopté assemblée bi rek automatiquement les jours les jours yi kii suit da ngay gis ni kii on a benn scène de viol yu bëri ay scène de viol yu bëri yu ñëw mm-hmm. donc pour dire juste que tey même tey viol bi sanction boo ko munti accordel dina dina am cas de viol mm. léegi ñun te ñi ngi saluer initiative état du Sénégal euh, mu criminaliser viol bi nekkoon combat bu yàgg combat mm. bu yàgg la bu société civile sénégalaise ne woon mm. ba ñu am ko ñu ngi féliciter état mais aussi ñun dañu bëggaat ñaaxaat état tey euh, certes da nga sanctionner les euh, coupables maintenant qu'en est des victimes xam nga tey boo sanctionné le coupable victime bi. foog nga jàppale ko foog nga jàppale ko effectivement léegi ñun su jàppalee victime boobu tamit la ñu nekk léegi ñu ne ñun victime bi tey. Mhm. parce que tey ku ëmb amoo choix di xool tey par les moyens du bord nooy génnee sa ëmb. parce que Sénégal bu nañ ko wax wala ñu bañ ko wax avortement ñu ngi koy pratiquer Sénégal. te bu baax sax. yéen journalistes yi xam ngeen si bu baax mais comme ba léegi dañ ko interdit te jigéen ñi ñu ngi si loru te ñoom kese ñoo si loru. Mm-hmm. góor du avorté. Mm-hmm. te ñoom la ñuy tooñ jigéen ñi comme tooñ nañ leen tey mais nañ leen euh, accordé benn protection tey ñun néewuñu même loi bi bu ñu ko voté. Mm-hmm. néewuñu tey ku ñu violé ba ñu attesté ko ni viol la wala inceste la automatiquement dañ lay avorté. boo ko bëggee lañ la wax ah euh, c'est à leur choix fekkee bëgg boobu voilà bu loi amee bu comment dire encore victime bi bu fekkente ne tu es ko attesté de ton choix bu doon bëgg nga autoriser la bu doon bëgg bu euh, da nga bëgg a la grossesse garder ko. nga garder ko donc yéen comme que criminaliser nañ viol nekkoon na seen combat léegi euh, ci beneen côté bi dangeen bëgg ñu autoriser euh, avortement médicalisé pour les victimes de viol et d'inceste foog naa leer na. waaw loolu noonu euh, loolu noonu engagement état la ñu rappelé waat. voilà est-ce que am nga euh, yaakaar yow maître Amadou Sarr que euh, seen lii seen loi bii ngeen bëgg dinañ ko voter Sénégal. effectivement man personnellement am naa ci yaakaar. Mhm. parce que ñi ngi je pense que avortement tey boo jëloon quelques années en arrière on n'osait pas en parler publiquement tey le débat est sur la place publique donc je pense que petit à petit parce que plaidoyer la ñuy wax ku wax plaidoyer processus la bi nga xamante ni dafa gudd hmm. donc nànk-nànk dinañu sensibiliser dinañu waxtaan ak ñu ñu war a waxtaanal euh, ñoom tamit ku kenn ku nekk joxe sa avis ñu xool euh, comment ñu ñu organiser pour euh, ñu mën a autorisé loi li nga xam mooy avortement médicalisé ñu laaj la ci beneen peut-être quelques minutes moo ñu dese ñu laaj la si ay questions euh, d'actualité en tant que juriste xam naa di nga si am euh, loo ci mën a wax di gis nga euh, question d'actualité bu affaire ñoom kilifa déjà yow ban jàng nga ci am en tant que juriste kilifa Simon euh, ñu taqal leen ci affaire euh, passeport wala euh, trafic gu visa passeport ainsi de suite. waaw si si domaine boobu man li si sama xalaat mooy information bi ni ngeen ko apprendre à travers les médias noonu laa ko apprendre puisque mi ngi si loxo yoon donc on va suivre le processus avec la justice xool enquête bi la lay relever. parce que man yoruma dossier enquête bi xawma lu nekk ci biir dossier bi donc on va euh, euh, euh attendre la suite xool euh, enquête bi lan lay révéler euh, ak tamit juge bi nga mën position pour ñu mun ci wax loo xamante ne lu crédible la ak lu wóor mais mais en tant que juriste naka gisee phénomène bi xew maanaam filmer nit à son insu après tas ko ci internet bi finalement affaire bi atterrir euh, ba ci loxo procureur ba ci juge am ci yoon naka nga gisee phénomène boobu ban jàngal nga ci am bon phénomène boobu noonu je pense que tey boo xoolee Sénégal ñu bëri dañ koy banaliser. Mhm. mais da ngay gis dara xew rek nit jël portable am filmer nit ki. Mhm. dugal ko ci réseaux sociaux am sans son consentement te euh, am na le droit à l'image tey nit ki euh, dafa am droit ci image am tey balaa nga koy publier walla nga koy fësal fenn war nga am autorisation boo ko amulee mais es en mais loi lan la si wax exactement ki nga xamante ni euh, toog na ak metre Sarr ñuy waxtaan yëgul tinul fekk euh, taal na vidéo am à côté léegi sax lunettes yi am na ay caméra cachée montre yi même stylo yi sax am na wala sa portable wala sa néeg sax def nga fa benn caméra di waxtaan ak maître Amadou Sarr ngeen waxtaan des chose ainsi de suite après mu jékki-jékki rek un jour gis boppam ci internet bi ñu koy coow. mais xam nga xam nga lan la si wax xam nga wala nga bës euh, ki jël ojom après mi ngi ci internet bi. ba léegi xam nga loolu laa lay wax nii. Mhm. cest di tey nit ki euh, munoo euh, def loo xamante ne peut-être doo ko si aviser. Mhm. tey man tey bu ñu ñëwee ñi waxtaan si dara danga nga ma war a wax ni ki da nga may firmer te mun nga ko publier boo ma waxul dara nga def ko amoon nañ insu yow mun la yoon. mun na topp ak nu mën ci dal ak nu mën ti demee. ak les faits. les les faits dugguma ci. Mm-hmm. mais yow act bi nga def yoon mun na la si topp. parce que da nga jël image d'autrui nga publier ko à son insu te joxe si consentement parce que nit ki am na droit. Euh, euh à l'image loolu. maanaam képp ko filmer wala nga enregistrer ko yëgu ko après nga publier ko même contenu bi lu grave grave lu nit ki def. kooku am na droit déjà porter plainte voilà parce que yow li nga koy euh, tuumal mhm. yow mi publier tamit yoon am na droit mu topp la yow moo njëkk a daal sa kaw quant à bi c'est au juge d'apprécier Euh, parce que moom moo am euh, euh, moom moo habilité apprécier euh, les infractions. mais fii am na ñoo xam ne comme ñi nga xam dañuy jël ay photo wala vidéo of seen jàmbur tas ko ainsi de suite da ngay gis ni rek dañuy sanctionner peut-être ki ko publier après paf c'est fini. waaw malheureusement ça se passe comme ça. Mhm. mais il faut tamit ni ñi xam seen droit ñi euh, askan bi di gëstu parce que nul n'est censé ignorer la loi tey yow boo euh, su ma jëlee sa image ma publier ko porte plainte ma réagiroo lu yoon mënuma topp parce que yow réagiro donc peut-être après fait bi peut-être mën na la si topp yow mais yow tey boo ma buggee topp am nga possibilité topp ma en justice. donc c'est c'est c'est normal. par méconnaissance dañ euh, koy c'est c'est Euh, topp comme Simon ak euh, euh, comment dirais-je kilifa si contenu vidéo bi. yoon am na si droit loolu c'est si contenu bi loolu c'est le ministère public maanaam procureur. procureur am moom moo am l'opportunité des poursuites. moom tey bu xoolee fait bi. contenu mu nécessaire ni ki mun naa poursuivre ma poursuivre bu jugé nécessaire mu ni ki du poursuivre du poursuivre donc moom loolu pouvoir discrétionnaire am. mais yow naka gisee la fait que ñoom ñu poursuivre ñoom kilifa si contenu vidéo bi. mais vidéo bi lu am la n'est-ce pas. Mm -hmm. ki ko publier peut-être amul autorisation maintenant procureur bi moom bu poursuivre c'est au juge d'apprécier parce que procureur bi c'est pas voilà euh, kon euh, leer na kon xanaa temps bi dab nañu dama lay bàyyi nga tàggatoo ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy auditeurs yi ak peut-être sa dernier message booy lancé ci seen task force bi di pour l'avortement médicalisé pour les cas de viol et d'inceste ok euh, euh, merci beaucoup madame moro pour invitation bi ci émission bi di ko rafetlu bu baax di ziar auditeur auditrice euh, bu réew mi FM ñëpp je pense que le débat a été enrichissant et puis mm. le message est bien passé parce que ñun tey campagne bi juste lu ñu tax a jóg mooy informer les décideurs informer le public sur thématique avortement boo xamante ne tey l'avortement si fléau la jamono bi mm. mi ngi tuer beaucoup de femmes il faut ñu wax ci mënuñoo toog nii ne duñ ci wax. jigéen ñu baree bari ñu ngi faatu parce que ñu ngi yàq ëmb ci loo xam ni amul médecin bu leen. assister si anam yi nga xamante ne. Euh, jaaduwul mm. alors que Sénégal moom engagement am dafa ne ñu autoriser l' avortement en cas de viol ou d' donc. tey ñun ñun loolu la aussi y' a euh, actuellement surtout y' a des sorties médiatiques yu nga xamante ne les gens dañuy déformer message bi di wax peut-être ñun lu ñu waxul moo taxit c' est bon aussi journalistes yi ñu mën a euh, euh, dem à la source xool message bi est-ce que li ñu dégg nii est-ce que réellement c'est ça qui est là mm-hmm. parce que des fois les gens fii nii lan la dañuy précipité wu pour jàllale message alors que dañuy déformer ñun tey lu ñu wax dañ ne uniquement pour les victimes d'inceste et de viol. léegi léegi lan ngay wax encore actuellement jigéen bi nga xamante ni mi ngi këram di ñu déglu euh, nekk victime mu viol souvent sax dañuy rus sa wax ne dañ ma violé euh, maanaam ñiy rus a dénoncer seeni violeur lan nga leen di wax actuellement parce que ñoo ëpp ñiy dénoncer seen violeur. waaw man man li ma leen di wax. mooy ñi koy nëpp nëppal. li ma leen di wax mooy. Mhm. nañu jàppale victimes yi dénoncer. Mhm. xam nga yenn saay du problème mu victime yi bañ a dénoncé de mais problème problème de famille la. Mhm. tey da ngay gis ku nekk sa famille ne su ma ko siwalee sama àdduna doom day yàqu. ñi ne l'honneur de la famille mais à quel prix peut-être si vie xale bi walla si avenir xale bi donc nañu dénoncer les cas de viol tey loolu euh, buñ ko jàppee nit ki gàcce la mën na dal ku nekk. parce que un violeur du naan tey kii laay viole kii lay violé moom lu koy animé kenn xamul. kon nañu aider victimes yi tey parce que ku ñu violé tey boo ko dénoncé à temps. Mhm. tey bu ñu la violé tey dans les quarante huit heures nga dem hôpital ñu defaral la euh, plus du lendemain. Mhm. xëy na mucc nga ci grossesse. mais boo toogee nga. Euh, dem ba grossesse bi avancé les preuves. Mhm. ba bi avancé léegi mënatoo ko nëbb léegi lépp euh, mu ngi nii nga ne xaaral ma dem ne viol la mais à ce kii moment yooyu noonu pour am preuve c'est quasiment. Euh, impossible mais beneen question sax bu ma la fàttee laaj di question d' actualité tamit kaawu Bougazelli bi nga xamante ni nee na euh, gendarme bi euh, bi nekkoon ci woto bi jour bi ñu koy jàpp moo ko filmer loolu lan la si yoon wax. xam nga xam nga c'est c'est un gendarme buy filmer xam nga xam nga tey. Hmm. li ma la wax rek cest à loolu yëpp tey. Euh, man dossier bi yoruma ko comme ça pour mun a. non mais en tant que juriste. mais en tant que juriste. waaw euh, lu yoon euh, lan la wax si loolu est-ce que jour gendarme bi dans les norme su dee moom la dañ ko war a daan. wala waruñ ko daan xam nga loolu c'est les propos de Bougazelli. Mhm. dam koy respecté dam koy nangul propos am la comme tamit di nga dégg beneen information ni ki il a été pris en flagrant délit. maanaam dañ ko jàpp loxo si poos mhm. donc version yi dafa bëri donc boo fu yoree nekk di tranché euh, peut-être que da ngay wax euh, da ngay far maa nga wax lu dégg léegi mais vidéo bi maanaam ki ko filmer ci woto bi jour biñ koy arrêté mhm. xam nga vidéo bi mi ngi circuler actuellement sur les réseaux sociaux moom nee na gendarme bi bi ko doon arrêté à côté moom moo doon filme te euh, apparemment moom rek moo ay gendarme rek ñoo mën a filmer loolu parce que oto bi boobu bu gazeli ak gendarme yi ñoo fa nekkoon loolu ma ne est-ce que yoon dafay dal parce que moom nee na day porter plainte la gendarmerie yoon dafay dal ci kaw gendarmerie waaw wala déet c'est la question yoon waaw si ñëpp la mën a dal maanaam si côté yoon amul man force de l'ordre la mhm. amul man euh, magistrat la amul man ministre la même le président de la république ñëpp euh, yoon mun na dal seen kaw. amul mm. yoon ku mu épargner donc tout le monde est justiciable ñëpp mun nañu mun nañu gis un jour nitrinel devant la justice. donc côté boobu noonu moom bu fekkente ne il a assez de preuves pour dire que gendarmerie moo ko filmé à son insu am na loi may na ko ko. mu topp ko dem topp ko pour droit à loi may na ko ko bu fekkente ne moom li muy wax dëgg la si moom yoon may na ko ko mu poursuivre ko. parce que amoo sañ-sañ filmer nit ki te jox la autorisation. voilà ñu remercier la bu baax a baax euh, maître Amadou Sarr euh, nekk euh, juriste nekk tamit jeune ambassadeur bu task force pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste ak porte-parole bu campagne wàllu ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am yéen di leen remercier yéen ñi ànd ak ñun samedi chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi émission bi mën ngeen ko.